kuréel gi ëmb ay ndaw di yëngu ci wàllu développement génne ci institut islamique alxaaji abdullahi ñas ñu duppee seen bopp ixwas wala sax uras gannaaw bi ñu ko tàmbalee woon ci ndorteelu weeru koor gi jongante ci tari alquraanul karim ci dimanche bi ci la ñu amal final bi ci chambre de commerce habib dramé nekk coordinateur adjoint bu kuréel gi ne mbégte kontante la ñu am ci seen ndaje mile sant ak gërëm itam ñi nga xam ne teewoon nañ waaye rawatina ñi nga xam ne jàppale nañ ñu prier xale yi jox leen ay cadeau yu am solo joxleen leen tam ay enveloppe yu am solo IRAS ci boppam bi muy départ en tant que GIE groupement d'intérêt économique génne na ci xaalisam cinq cent mille francs séddale ko ci ay enveloppe pour prier xale yi waaye gannaaw loolu itam ku mel ni président Serigne Boub nga xam ne mooy président chambre de commerce loolu itam bi nga xam ne mooy ànd suqali rek moom itam def na ci loxoom bu baax a baax. gune gii di wuyoo ci Seynabou Gueye daal di jël ndam li mu jóge woon ci daara Serigne Saliou Gueye bu Coofak. sëriñ boobu yebal délégation bu am solo génnee koppar guddun teg ko ci loxo candidat yi boole kook ay piisu jasineer kuréel gii di uras doon ko sargal ci ni muy taxawoo alquranul karim Omar bokk ci délégation bu ko fi teewaloon yëkkati ay kàddu sant yàlla gune bëgg na cee teew waaye nag yàlla mooy maye chance pour ñu teew ci kon nag loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di wax ne jotaay la boo xam ne ñu ngi ci doon ndokkeel ku mel ni président Serigne Mboup koo xam xam ko ci lu jëm ci wàllu alxuraan kon suñ ñëwee fekk waa IRAS di ko def buñ koy def defuñ ko ngir lenn rek pour yee population bi pour gën a dimbale xale yi ci seen jàng pour orienter leen wan leen ne leen dañoo war a jublu ci wàllu économie loolu bokk na tax yi Habib Dramé ne matériel ci wàllu IRAS production waaye matériel tam ci wàllu IRAS info ndax IRAS info chaîne de télévision la boo xam ne sànq rek ñi fi teew ci saal bi yaakaar naa documentaire yi ñu seetaan yaakaaruñu woon ne chaîne bu ndaw bi mën na ko def mais documentaire yoo xam ne yu archivé la def nañ ko fi te loolu ay moyens ay maigre moyens lañ koy defee kon maigre mooy yooyu ñu ngi ñaan képp koo xam ne te mën na ci jàpp ci matériel au audiovisuel matériel audiovisuel bu mat sëkk boo xam ne dañ ko mën a liggéeyee loolu itam lu ñu amal solo la ak matériel de production kuréel gi di URAS ëmb ay arabisant li leen tax a jóg mooy soppar ñi gis-gis bi société bi am ci ñi jàng kàllaam ak yaaram tax na ñuy yëngu ci wàllu production ngir jéem a tegaat yoon ñiy ñaawal diine ji di ko jaarale ci ay téléfilm bëgg jox exemple ndaw ñi ne liggéey nit moo ko war a fàggul boppam warta toog rekk di xaar ab gouvernement tax na lile ak yeneeni mbir jéem ubbi ay bërëbub liggéeyukaay yu limu yu mel ni ki URAS info URAS production URAS business ak URAS éducation juróomi candidat ñoo doon jongante ci finalu prix Uras Group public bi jot na seetaan exposition bu am solo ci institut islamique alxaaji Abdoulahi Niass ànd ak loolu jaar jaaru Cheikh Mouhamad Nazir Cheikh Ibrahim Niass